Eumeu seen ñu ànd ceeg ki nga xamante ne moo di euh, Alburax production euh, événement boobu papa Modou Lo Ama Baldé war a ca Gàmbi waaw xam nga sama ma am def nit boo boo bëggee xam nu pepp tool dangay ngay fekke biñ koy bees. maa fekke mbojj mi. waaw waaw. Aziz Khoudia Diop. Hmm. Aziz Ale Ndiaye ak Baye Ndiaye Khoudia Diop Baye Ndiaye Ale Ndiaye ak Masata Ale seen mag. Hmm. ñoomoon ñoo papa dañuy seeti Adama Baro te yow lañ bëgg nga jiitu. ndeysaan. nu ànd ca palais ba. président mm. Adama Baro recevoir Abdou Aziz Ndiaye ak lig Nicolas Enco. gis nañ ko fekkee nañ ko dëgg la de. ñu fi sonné. Mm-hmm. président Adama Baro wax nañu sax ci làmbi Sénégal loo xam ne date yoo xam ne xamatuñu ko wan. dëgg ni Balla Gaye mm. sa bàyyi tuuti kon moo tax suma njàng yàq ndax Double Less dafa jaar Gàmbi yàlla na yàlla dolli ko leer amiin waay amiin mu wax ni hmm. abdu Aziz hmm. waxuma làmb ji waaye secteur bi secteur informel bi ak commerce bi li nga ci def tey ak fa nga ko yóbbu ni ko bërki démb bi nga jëm see fii yaa ngi jóge ci sunu baay sunu sëriñ sëñ Muntaxa gis naa la nga def Touba te gis naa la ngay def Tiwaawan hmm. ci social mu ne ko kon boo jógee ci suma mag sama xarit. Mm-hmm. sama conseiller président Macky Sall. Mm-hmm. ngeen dikk fii ne da ngeen a bëgg a def lancement wu làmb ji. Mm-hmm. diggante Eumeu Sène ak Tapha Tine. waaw diggante Ama Baldé ak. Modou Lo d'accord naa 100 pour cent. ne maa koy présider. kon yaakaar naa ni le 15 ak le 16. Gambie dana mel ni kere ba tey seen mu amee ndaw àndeek Mor fa dama yóbbu leen Gambie te ñeenti mbër yi fa jëm juróomi mbër sax lañu juróomi mbër yi dem Gambie Tapha Tine Eumeu Sène waaw Modou Lo Ama Baldé uh-huh. Pape Diouf génération waaw nu mu tu génération nan laa génération consciente génération consciente xale bu yaru boobu te am maanaa mën a way lu mu way téere la la Gambie nga koy teeru fi ni teeru boo xam ne bii. Mhm. xam naa ni li ma wóor mooy. mooy. képp koo xam ni ci àddina. Uh-huh. bëgg nga seetaan wàccu Modou ak Ama Baldé ci bag bi. Hmm. wàccu Tapha ak ki nga xam ni mooy. Eumeu Sène ci bag bi. Hmm. wàccu Pape Diouf ci bag bi. Aziz Aly Ndiaye barastiku. Hmm. Baye Ndiaye euh, euh, euh, barastiku. Luc Nicolas barastiku. kon ñoom ñëpp daal ah, laal avion amul ñëpp ci féeri bi lañuy ñuy jàll. kum neex nga laal avion waaye dama la ne. Hmm. xam nga yundum. waaw ba fi hôtel yi ñuy dal. Hmm. loolu nit ñi mënuñu koo daw. dëgg la de dëgg la de. lu mu bon bon bon bon danañu leen teeru ndax lu mat presque 15 kilomètres. Hmm. loolu kay du nekk ci kanam rawuli bët. Gambie nga koy waaj. waaw. waaj mu rëy parce que président Adama Barrow moo jël yëf yi amee. ni njaboot gu jóge ci président Macky Sall man maay seen mag ndax président Macky sàll mooy suma kilifa kon su ngeen fa jógee bëgg yëngal dëkk bi bëgg a animer dëkk bi. te président Sall barki dem mu ngeen gis. Hmm. école bi mu fi tabax. Hmm. te école boobu. doomi Sénégal dafay jàng doomi Gambie di fa jàng. ndax Gambie ak Sénégal mel ni réew la. Hmm. Aziz Ndiaye am initiative boobu. lig Nicolas ñëw ànd ak moom mhm. dañuy sant yàlla di ñaan yàlla sunu borom. Mhm. yàlla nañu dem Gàmbi ci jàmm dellu ci jàmm xam nga foofu signature contrat dañuy dagg billet waaw Hmm. maanaam signature contrat bi comme lamb lay doon. kon signature bi entrée la. Gambien yi dañuy takkaat wurus bi ñu jóge ñi am na ñoo xam ñu ngi war a jóge Soudan. waaw ñi jóge Amérique. Hmm. ñi jóge France. Angleterre ñi jóge Angleterre ñi jóge Italie. waaw ñi jóge Mali ñi jóge Burkina ñi jóge Gabon. kenn du des man maa la wax loolu. parce que fête national la entre Sénégal ak Gambie. waa Casamance ngay wàcc. laa ilaha Sigee Soor. Guddoom Adiyaan Bakondi Jibaanaar. waaw Binjoona. Mhm. Jululu. Kolda. tàmba Tamba. Kousanaar. Dakar Kaolack Ndakaaru waaw Thiès Mbour Ndar ñëpp gi waaj. mais li nga xamante ni nag papa moo taxoon ba ba léegi mënuñu woon am euh, euh, face à bu leer wala làmb ji fiir senegal à chaque fois bu ñu jàppaan lu mel ni violence moo koy yàq. lan ngay wax doomu Sénégal yi war a jóge fii dem Gàmbi te saa su ne ñu leen xoolee benn bët bi bu ñu yeggee Gàmbi nan lañu ñu war a doxalee. bu ñu eggee ci salle conseil des ministres du président Adama Barrow. Mhm. maa ubbi waxtaan wi. yaa ko ubbi. Mhm. mille hommes. mille. Mhm. mille hommes le président Adama Barrow yi génne pour ñu sécuriser dëkk bi sécuriser fi mbër yi nekk sécurité stade bi sécurité lépp. te foofu réewum jàmbur foofu moom Gàmbi la. Ah. boo defee loo war def dem ci kaso bi immédiatement. Mhm. amul werante. Mhm. te it dana am ñoo xam ne danañ sol tëni am ñu solul tëni. Mhm. waaw loolu moom. képp koo xam ne ak njuba la yóbbu. man mm. ngaa dem ku njub yóbbul. bu yeboo nga toog bu yeboo nga toog. ndax dama la ne pro programme bi ni ko Aziz Aly Ndiaye programmé moom Baye Ndiaye. Hmm. ak Luc Nicolas. Hmm. def itam chef d'état. waaw. def ko ni junniy junniy alkaati laay génne. ñoo leen di teeru. Ah, mbër mu nekk bu néeg ba ngay néeg ba ngay nekk alkaati yi taxaw ca bunt ba. Ah, waaw. loolee ful la. manaase yi noonu man sax néeg may tëdd alkaati yi taxaw ci bunt bi. très bien jërëjëf aadama Baro. kon ñu ngi ñaanal président Adama Barrow. mais mais mais ci état de état de forme mu bëri tamit foog ñu wax ci tuuti rek balaa ñoo tëj. fort yeeg faiblesse yi parce que gis nañ Modou Lo def sorti ne moo gën a pare Ama fuuf Ama bañ na loolu ñaar seen état de forme fooru Modou ak fooru Ama Baldé ci tënk lan nga ñu ciy wax papa. waaw Fall daf ma waxal ni ma làmb doog maas dabante la. dëgg la. dafa bëgg kuy benn benn. Hmm. amaa bu arbitre soufflé mooy la nañ dem àllaaxir lu waayam jël. <laughs> dëgg la de du xaar. déedéet. waaw waaw xawul xaar. kii fooram mooy léewtoo di benn benn cokkaas. bañ la kàllit. kii arbitre day soufflé mu umb góos. nga fëx ngeen daw daje foo nekk mu fekk la fa. Mhm. ngeen la nga amu ci kenn ku ne di sa gi ñooy morom. ngeen wuti ko. Mhm. te amaa ku mas a jàpp tàqalikoo leen ba làmb ja jeex. dëgg la de dëgg la de. Modou Lo it Modou nag phénomène la. Mm-hmm. attention. waaw. phénomène la de. moo tax ñoom ñaar kii bëgg na benn benn kii bëgg na boobu suulee nga nga ne acca te Modou Lo mosut arrière. Mm-hmm. xam nga Modou Lo mosul arrière ci làmb ci àddina. Modou Lo Ama seen làmb baat ak tontu la tafaati nag ama seen seen làmb baat ak tontu la. nga ni ma. maa la wax loolu. tey ji làmb. tafaati nag ama seen kenn du arrière. ëmma bu arrièreul Tafa Ba dina baax ci moom Tafa njool la de. ah ëmma du arrière. ëmma yàgg naa ëmma yàgg naa tuur njool. dëgg la de. Hmm, Bombardier sut ci mbër yi. dëgg la de ko <laughs> la de ku xam Bombardier naka Tapha Tine defoon. mbëri Sénégal yëpp ginnaaw tey seen Bombardier ci sut. ñi fi jaar 60 ak tey. dëgg la ginnaaw duubal lees ak tey seen Bombardier ci sut. moo ci sut de dëgg la de. waaw. Hmm. Gris Bordeaux sut Gris Bordeaux moo sut ëmma seen. Hmm. teewul daa taxaw xeex ak moom. waaw. moo tax may wax ni. Mhm. il faut ñu faal def ma waxan ni ma. mu ni jël bëri bi jël duma yi ku ko def man ngam coor am de foog kenn jël da ngay jël bëri bi bàyyeeku duma yi mbaa nga jël duma yi bàyyeeku bëri. wallaay dëgg la wallaay dëgg la en tout cas daal ñaari combat yooyu. Mhm. bu ko yàlla sunu borom dogalee. Mhm. dina nekk feet boo xam ni la 16. ci Gàmbi yàlla nañ ci dugg ak baa génn ceeg siin. macha allah. di ci ndokkeel nag Aziz Ndiaye. Mhm, mu baax di ci ndokkeel baay di ci ndokkeel li waaye nag di ndokkeel ki leen jox ndigal. Mhm. ndax Aziz seen baay. Mhm. muy ma sata aale. moo leen jox ndigal ne leen d'accord naa. ndax lii nga xam ni tey moom lañ def ci diggante senegal ak gàmbi dafay gën a rataxal diggante bi gën a rafet. Gambien yi ak sénégalais yi communion ko. muy matière bu jóge Sénégal dem Gambie. Mhm. soo lëggee matière jóge Gambie ñëw Sénégal. xam nga xoyantaan gi jóge Gambie. di bëri si fii dëgg la dëgg la dafay day jaadu ñu nit ñi dem kon lii euh, culture ak sport réew yu ànd jaxasoo. Mhm. sport ak culture mën na ko def. wallaay yàlla na ci liy bokk. yàlla na ci liy bokk. waaw bëre bi kan la arrangé si ñoom ñaar ak xeex bi kan la arrangé si ñoom ñaar. xam nga Modou Lo ak kenn ku ne bëre arrangé na la. Ah. xeex arrangé mais nag. amaa moom bëree ko arrangé parce que moom bëri la dafa bëgg bëri Modou Lo mën naa bëri mën naa xeex. Mhm. te boo yeboon Ama di ko conseil loo koy conseil ndox du bàyyi yoonam bu arbitre suuf waa ji nekk fekk ko fa. da nga koy xeex la wala da nga koy bëri la. bëri rek la mu doon def. xam nga xeex wut buntu la. xam nga xeex wut bunt la Modou. Mhm. wax naa la bu fekkee Ama dafa taxaw léeg-léeg di benn benn. waaw Modou am avantage. waaye bu arbitre ne pire Ama mais lim xati. Hmm. dañu koy wuti nag foofu nag ku ëpp sañ-sañ. waaw ëpp bëre. waaw ëpp audience gën a gaaw. yàlla mën na laa dimbali yàlla mën na laa dimbali macha allah macha allah maam yaakaar naa ne kàddu yooyu am na solo lool ku mën. xam nga ko ku mën. Hmm? non xam nga làmb ji léegi. Hmm. même su ma xamee ku man duma ko wax ndax xam nga lu tax. samay doom a fi nekk ak samay rak. dëgg la dëgg la. ndax Modou Lo ku ma jox cër la. ma fonk. du ma ko fàtte mukk dafa am jëf boo xam ni bi may def 18 ans de média mm-hmm. tëgg Ousmane Diop ak Saka Dior mm-hmm. numéro 2 mm-hmm. yëgal ko mbëri làmb yëpp mel na Modou Lo mooma ci yónnee ñaar fukki junni hmm? barke Serigne Touba ndeysaan jëf la jëf la amaa nag suma dooma bàyyam daf ma ko mayeen ndax avance su amaa bi ab la bi faalay balde mujj lekk xaw ma naan na ca boisson. Mhm. xaw lekk na ci ceeb mooy contre Malick Niang. contre Malick Niang. man maa yóbbu avance bi maa Gaston Mbengue ak Pape Thierno baax mhm. yéeg ca seen kër ga. escalier yu escalier yi yéeg ca kaw. Mhm. noog sil balde. keroog laa mujjee gis Baye Fallay Balde. mu ni ma kaadi mën mu ni ma dénk naa la caat. ndeysaan Gaston ngi taxaw. Pape Thierno baa ngi taxaw ñu ngi dund. ni ma nag waxal naa la bu caat màggee yabeel jeeg. waaw donc kooku it. Tapha mhm. Tine maa ko jur. Mhm. ba pare mu dëkk Bawol. Mhm. am yar fonk ma lool. ama seen fonk ma. ama seen dama koy sànni xeer. ndax maa ko jëkk a tegal ñaari junni ci àddina. sama ñaari junni moom mooy li mu jëkk a gagné contre Mbaye Diouf daan Mbaye Diouf fii ci kër buntu kër Baye Youssou Diène mhm. buñ dajee ma ne ko sama 10 000 francs yi mu ni ma xanaa 10 000 francs yi du jeex ma ne ko soo bëggee mu jeex <laughs> da ngay takk million jox ma su ko defee léegi nag ma dem ci rajo yi def point de presse en tout cas li may ñaanal mbëri Sénégal yëpp mhm. yàlla nañu wér amiin yaa rabbil alamin papa amiin yaa rabbil ñaanal promoteurs yi mhm. di ñaanal menacé yi di ñaanal amateurs yi ak supporters yi di ñaanal communicateurs yi di ñaanal journalistes yi xam nga man dematuma làmb mm-hmm. mais nag samay doom yi ma jur mm-hmm. ànd ak seen baay 40 ans mm-hmm. muy Alaaji Aale Njaay may ñaan yàlla na bar sàqu si jaaj Maalik Seydi Boubacar mu xippee fa amiin waay Njaay ñooñu ñoom bu ñu dee def lu mel nii ne may yaakaar nañ ci sa xel ak sam pexe. foog nga ci. foog ma ànd ak ñoom la wallaay dëgg waaye benn promoteur. Mhm. mënatut a am may dem ci signature contrat. amul benn promoteur boo koy defal. waaye nag bëgg yëg a koy fay. Mhm. samay doom lañu ñu ngi may teral. Mhm. di ndokkeel assis ci màggal gi. di ko ñaanal. ndeysaan. keroog ba mu jëmee ci sëñ Mountakha Bassirou daf ma ne bàyyi kaay nu dem. Serigne Mountakha Bachir ni ko sant naa la gërëm naa ni ko sa jëf nag sa maam Serigne Touba nungu na ko. sa maam Seydi Hadj Malick nungu na ko. rëy mu jóg dem ci kër Mamadou Bachir. Mhm. moom Cheikh Abdou Khadir Ilimane teeg indi ay teraanga. nun ñii kenn ku ne jox na la nag wu jar téeméer junni ak juróom fukk. jox la ceebu sadoor jox la macaroni sadoor mm. jox la iwlu Sador. bëgg naa sax. Euh, euh, Sador Sénégal Buzz 221 invité Sénégal Buzz 224 bu soobee yàlla incha allah. Mm-hmm. waaw. te bu soobee yàlla café Touba Sador. aji sa nga koy préparé ñu ngi koy fabriqué. waa kon Sador ba tey réew mi kon. dama la ne huile Sador. amul cholestérol. ndeysaan. huile la boo xam ne du niinal ceeb. nga di ko lekk di miir. ceebu sadoor booy lekk léegi muy rees léegi. nga ni ma macaroni sadoor booy lekk léegi muy rees léegi. léegi nag bu ñu indee café Touba sadoor. waaw. tabarkàlla macha allah macha allah wallaay dëgg la ko de bu damay ragal murit yi nangu nangu aji si tijaan yi. <laughs> tey sadoor day natt muuram koor di génne asaka du liggéeylu lu araam. di yóbbu nit ñi màkka. Mm. di faj ku feebar di tabaxi jumaay tabaxi yàq. te damay wax ni li may wax ci sama xarit bi Demba hmm. dama leen a mas a wax ne EDK butigam boo dugg butigu EDK boo dugg hmm. yor sam njàpp ubbil frigidaire bu la neex doo fa gis lu yàlla tere wallaay dëgg la la de hmm. moo tax sunu nationaux yi nañ leen jàppale xoolal ku mel ni sama xarit Demba Ka liggéey bu rëy bi mu liggéey wallaahi borom EDK ko station ba mu def Kousanaar def ko Tambacounda waa Tambacounda cay liggéey. waral loolu. ba mu def Saint-Louis waa Saint-Louis liggéey. Mhm, réew mi ko ñor. réew mi moo ko ñor. dëgg la xool Jolof ci kenn. waaw ah, yow lépp ay sénégalais koy def sénégalais koy liggéey. kon sénégalais yi produit yi nga xam ne sénégalais yi da koy liggéey nañ koy utiliser. waaye nag waaye nag am koo xamante ne moon nag sama iwulu bopp la te sama sama suñ ñoo bokk xarit aa ah, mooy Iwil Fatou. muy sa xarit. Iwil Fatou as ndaw as ndaw as ndaw Ndoukoumane sax nee na arab ba ci gànnaay yi tubaab ya. ku baax xanaa xamoo ne as. Asis mooy taawam. déggal loolu. as as ndaw. Aziz Ndiaye mooy taawu aas. moo tax iwil faatu bi aas yor. Mm. ak iwil sadoor. benn la ñoo bokk gaaw la ñoo bokk ndey ak baay. wallaay la wallaay dëgg la. aas de aas. Mm. Aziz day indi 500 conteneurs aas jaay ko. dëggal loolu. barke Mamadou Rasulullaay. kooku nag yàlla da ko bind indi ko àddina pour tàggale gor ak gàcce. ndeysaan. dama la ne li tax ma ni ko ndukkumaan dina barkeel. aram faqa. aas mm. wutul concurrent. nga ni ma. li muy jaay danga gis ku koy indi mu lamb mënoo koo jaay as jël ko jaayal la. loolu loolu baax. jox la say milliards. Hmm. day indi sadoor as ko ko. day indi ceebu sadoor as jaayal ko ko. Hmm. Hmm. waaye Aziz it. daf ne aas. yaay sama baay ginnaaw Aale Ndiaye yow laay roy ci liggéey ci njub ak njàmbaar ndax aas. ajjuma la dem Touba. ajjuma samedi dimaas altine talaata àllarba alxemes ba ajjuma la del si waat xeetam yëpp kër si jaaj Malick lañ yaakaar hmm. as tabax kër ak milliard Touba nag yi mu jënd ëpp nañ fanweeri nag amul nag wu yées million hmm. waxuma nag waxi ndax doyatuma ci as seede hmm. yenn yi dañu koy defar def ay saami 30 kilos di ko jox jaami yàlla yi ne demal sa kër togg leen dañ koy togg ay mbana di jox jaami yàlla yi damay jàpp dama dama dama. dama xewlu damay jàppale maam Serigne Touba Xaadimu mm-hmm. Rasuul. Mm-hmm. kon as ndaw maa ngi koy ñaanal ndaw sa ndeene. am ndeysaan. yàlla na yàlla guddal sa fan. Mm-hmm. yàlla na la yàlla wéral. Mm. di ñaanal nag rek père de la nation. waaw président Macky Sall. le gardien de la constitution sa xarit. li nga jëfal diine yàlla na la ko diine fay sàll. amiin waay amiin. yaa man ci jumaa yi man ci jàkka yi. te wax naa la ni la. Hmm. moom du jëf di wax li muy jëf nit ñi gis ko li mu jëf te nit ñi gisuñu ko moom. te bërki dem ba mu taxawee ca kanam baayam ba. Hmm. soppeem ba sëriñ Muntaqa Basiiru hmm. ni ko su ko yàlla dogalee ci wàllu ma jiite réew mi màggal gii lay mujj ñëw jiite réew mi. ndeysaan ku ne xam na ne. dédd ba nul deru gaynde ndax yàgg na caa doxe fitna. ñaan yàlla sunu boroom président Macky Sall li nga defal diine si defal ko tariixa yi defal ko jàngu bi yàlla na la ko yàlla sunu borom fay defal la gudd fan ak wér ak wërsëg ak xiwal gu sax ak ay ngëneel mhm. te waxoon naa leen ne leen mhm. giléem gi jiitul giléem ñiy màtt giléem gi jiitu sa wurus wi hmm. ak jamaa beeg or bi giléem yi topp ci ginnaam di ko topp te mënuñu koo jot hmm. ku ko si jot nag a màtt saabu ndax bëgg or bi rot nga am ci loo fort waaye Macky nag du geestu déedéet looloo ko may lii mu am hmm. kon ñu ngi koy félicité di ko ndokkeel di ndokkeel soxnaam nag ndax première dame gunge na président Sall jàppale na ko ci nit ñi jàppale ko ci fuqaraa yi jàppale ko ci gone yi jàppale ko ci néew ji doole yi jàppale ko ci hôpital yi ba créer servir le Sénégal ñoo mhm. ngi ñaan première dame mhm. soxna Marème sàll li nga sonn ci askan wi sonn ko ci sa borom kër yàlla na la ko yàlla fay ci sa njaboot gi amiin gu góor gi ak gu jigéen macha allah macha kaddu yi am na solo Papa am naa mbégte bu baax a baax a baax dalal la fii ci Sénégal Buzz 221 ndax nee naa la saa su ne bu ñu toogee ak yow rek suñuy waxtaan njëriñ lay doon ci askan bi te loolu lañ sàkku ci kaddu bég naa bu baax a baax a baax ci jàkkaarloog yow. jërëjëf li ci des rek mooy euh, di ñaan yàlla def ci réew mi jàmm. amiin waay. di ñaan nawet bi yàlla na ko yàlla barkeel. loolu di ñaan yàlla suñu borom yàlla mm-hmm. yàlla na ko muurloo. amiin. di balu Sénégalais yëpp ak amiin di bal Sénégalais yëpp ak mm-hmm, mm-hmm. di ñaan yàlla sunu borom macha allah def ci réew mi jàmm defal ko ñu ko dëkk maa ngi balu ñëpp ak mm-hmm. li ma ñaanal yàlla sunu borom mooy wax ji na jub te nekk dëkk bu jubee yàlla su dëngee man maa mujj jërë ngeen jëf jërëjëf kàddu yi affaire rafet na am na solo kontaan nañ bu baax a baax a baax ci dalal ko maam ni rek lañ koy defee di leen jox daje si beneen numéro jërë ngeen jëf